البقاء السماء إذا ودعت سمي محمدا الأمرت مئي كتمان فتغتني مني jërëjëf nga yaakaar ne ñi wax lii daañu waxantu Seydi Hadji Malick nee na bi mu ëmbee sallallahu alayhi wa sallam moom Aminatu bintu bi la ñépp ñëw ne ko yaa ëmb yaakaaru tey ak ëllëg anbiyaa u yépp ba juróom-ñeenteeli weeram bi mu amee juróom-ñetti weer kenn du yonent bi mbedd mu mës a sóobu yaayam aminatu bintu wax bin mbedd mu mës sóobu ndax iblis daf ko daan jonkonu pour yàqal ko mbedd mu mës a sóobu yonent bi moo ko naan yaay ci biiram mu ne ko am ah, mu ne ko mbedd mi bu fi jaar ndax iblis a ngi ci kanam fu mu dem ba bëgg a toog mu ne ko jógal fii du sa place ndax iblis saw na fi pour yàqal ba am bés mu ne ko yaay bu ma sañoon ci biiram de di wax ak moom muy dégg su ma sañoon su ba ca teen ba dootoo ci bokk ndax jëw yi sonal na ma seetal loolu jëw yi sonal na ma su ma sañoon nga bàyyi ba ñu root ba noppi ba dem muy la daloon yonent yàlla Suayb ak njabootam ku jigéen nga loolu yàgg na fi moo indi yonent yàlla musaa denc ca kenn fa lamma tawalla ila dilli qaala rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir summa tawalla ila dilli fa qaala rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir wa jaat ixdaahuma tamsi ala istixyaain qaalat inna abi yaduuka li yajziyaka ajra ma saqayta lana loolu alquran la ok yonent bi ne ko bu ma sañoon nga may ma rek bu ñu rootee ba dem yow nga door a dem root waaye xam nga kenn nit man te yéen bopp mu am bés boo xam ne Aminatu bintu wax bin paan la yóbbu yóbbuwul siwo xam nga siwo mën nga ko yenn sa bopp root paan bi ba mu fees mu bëgg a yenu man te yenu mu xool ndeyjoor gisul ku ko mën a yenn mu xool càmmoñ gisul ku ko mën a yen yonent bi ne ko yaay bu ko wax kenn nag fekk judduwuma ne roseet loxoom jàpp yenn yaayam delluwaat ci biiram mu waaw mu ngi moom la saam di wax na mujjizaatil badri am waaw min mujjizaatil badri Cheikhul Hadj Abdoulaye Simaali nee na min mucjizaati albadri nabcu lmaai bayna alasaabici bila miraai cheikh alhaaji abdoulaye Sy ne shukka jazaan lilhabibi albadru akrim bi kadaka shukka sadru min mucjizaati inshiqaaqu alqamari أكرم بي فحبذا من وزري ما مبدنا تعداد ماله من معجزاتي فكسرة كعدك الحصوات يا سيدا أسرى بي على البراق لو العلي وخرق السبع الطباق maam Abdu ne za kullu min mucjizaati alhaadi alayhi salla xaaliqu libaadi fal tuksiru salaata kulla aami ala nabi almustafa aladnaani maam Abdu neena weeli xurri alkiraami tukramu fi hadi daari وتلك ترحم وكل من صلى عليه مرة صلى عليه الله عشر مرة عند اشتداد لول يوم الأيوم وشدة وفظع ووجم شيخ الحاج ضيس مالنان يبني وشهد الضب لو الرسالة والظبي والذئب بلا مجادلة وقبل رأس النبي شاة كما بيق الأنبار روات عين قطرة بدون ما شباه ردت كما كانت بلمس المصطفى سباينينا والبيت قد مال ما على الركان ساجدة للمصطفى العدنان أصنام قد نكست ليالي وسرور العباد بالعناد كلمه الضب وحن الجزع لدى الفراق والحنين يسمع من معجزات الانشقاق القبري تكرم به فعبدا من وذري فلا يقول المادحون وما أفاه صلى الله عليه وسلم عندما الكتاب من معناك سبب سيدنا محمد بك لي قليب مغلق يا سيدي يتلوم ومشاهدة مقصود بعواك سمع وإذا سكت ففيك سودي كله وإذا نبت فما دحور ألياك وإذا ثمود فانتقل طيبا وإذا نظر فما أرى إلاك يا مالكي كن شافقي في فاقتي إني فقير في الورى لإناك يا كرم الثقلين يا كرم الورى بجود بأرضني برداك صلى الله عليه وسلم أنت الذي نظمت برية دينه والله والله sallallahu alayhi wa ala alihi illa sabin wahid wa tisau fata'am طلبات الخبائل عصبة وللخبائل عصبة عمضاء ماذا يقول عن النبي محمد وأولاده وأنا الأيوب هدي فيه بيانه محمد الأمين alayhi wa sallam sëriñ Maodo da baax ne yom ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lam yashi shiab an qatratin min ghayz dal hattabi lakinani udri bila la'allani Mamadou Lamine ya man akunu bi saa'ati ridwani abal ma tabarakallah abal ma bii la waaw waa baax na fa tabaarakallaahu kon ajaaru gi li ma bëgg a wax mooy bi yàlla dogalee aminatu bintu wahbin am juróom-ñeenti weer Omar ñooñu ci sa ginnaaw dafa mel ni bëgg nañu xool de xaw ma nag waaw kañ bi ma amee juróom-ñeenti weer gannaaw mujiza mujiza bu ko arab waxee mujiza yónnante rekk ko mën mujiza mooy xar baax goo xam ne bu ko yónnante defee kenn dootu ko mën a def ci kaw suuf wali yu nag kiraama lay def moo tax nga gis sëñ Tuubaa julli ci géej gi nga gis keneen di lekk safara walla nga gis kuy naaw ci jaww ji walla nga gis kuy dox ci biir géej gi di dem kii def na lii kii def lu niroog moom wali yi wali yu bii mën na def lii wali yu bale def lu niroog moom waaye ab yonent bu xesee def dara kenn dootu ko mën soo ko bëggoon sax dootoo ko mën mooy mujiza mooy li xaaji sàmm wax ci biir woy wi xar bi mu xaroon weer wi te yàlla wax ni ko iqtarabati saa wan shaqal qamar loolu kenn dootu ko mën ba bés penc lu mel ni mbët nit rëbb na mbëtt ñëw di romb yonent bi nuyu yonent bi mbëtt mi nuyu yonent bi looloo gën a moo gën a doy waar mbëtt mi dekki ne ko may ma rek ma nuyu yonent bi boo demee door maa saaf déet maa ngi ñëw bi mu nuyee yonent bi ne ko maa ngi fasanteeg yow kóllëre yow ki yàlla yónni ëllëg pour ma dugg àjjana yonent bi ne waa ji jaay ma mbëtt mi mu jaay ko ko mu ne ko fasante na ak yow kóllëre yow mbëtt mi yow mal xiyaam di nga bokk ci mbëtt yi dugg àjjana bàyyi mbëtt mi mu dem ku mën a dugal mbëtt àjjana sa ndey waxee noppi nañ waxante dëgg ah mbëtt te ñoom ñii di wax yépp nangu nañ loolu ku mën a dugal xaj àjjana waaye sa ndey waxe noppi dëgg walla du dëgg xitmiir xitmiir ca ashaabul kahfi xitmiir mooy seen xaj bi leen juróom-ñaareel te xitmiir bokk na ci mala yi dugg àjjana ëllëg te ñam àndaloon yonent bee leen gën te ñooñu sax duñ ay yonent ashaabul kahfi duñ ay yonent di ay xale la yu gëmoon yàlla ragal yàlla buur bi bëgg leen rey ñu daw buur bi bëgg leen rey ñu daw dugg ci benn xunt benn gorot yàlla rey leen fa salaasa miata amin ñetti téeméeri at trois cents ans ñu tëdd fa di nelaw yaakaar ne ñu ngi nelaw ba yàlla mu soob ko rek mu yee leen ñu yeewu ku gën a mag ci ñoom ne ah ñun suñ nelaw yi yàgg na di biñ fiy dugg yoor yoor la woon léegi tàkkusaan jot na gis nga ku texe noonu lay tiraayi bàmmeel di mel ci yow doo ko yëg ñu dajee ci seen biir ñoom ñoom juróom-ñaar xool xaj bi fi xaj bi tolloon toogoon ci buntu pax mi di leen wattu wa kalbuhum baasitun ziraayihi bil wasid man alquran lay wax man kenn mënumaa jam man di may wax alquran la déggu leen ma wax fi sax xadis xanaa alquran moom Ablaay kenn du ko werante ku kenn du ko werante moo tax léegi ma teg fi xadis yi sax di wax alquran kom xadis boo yëkkati ñu ne dañ ko jam xanaa kaamil bi kenn du ko jam moom kaamil bi moom yonent bi lay tagg ndax law anzalna hada alqurana ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashyatillahi kon mbët akub xaj bu mënee dugg àjjana ci barkeel ku baax ki tax ñu bind ñooñu ñépp nag ma di leen laaj yéen jigéen ñi ba ci astu mi door a yegg ak sama doom kinne xam nga lu ma leen di laaj waaw yéen jigéen ñi yéen dama leen di laaj rek yéen comme góor ñi ñoo wax loolu ki ko wax góor la comme góor ñi ñoo wax loolu yéen jigéen ñi ma laaj leen ndax yenn na maana nga am doom muy milliardaire yor cent quatre-vingts milliards ngeen am doom mu yor cent quatre-vingts milliards tabax juróomi château ci dakaar bàyyi la ngay luyee ci barak loolu xel nangu na dama leen di laaj rek da pour terre à rek lay waxee am laay terre à terre Haaji damay wax rek terre ndax yenu na maana yéen jigéen ñi ngeen am doom mu am cent quatre-vingts milliards di milliardaire abul amul ko dut yow tabax juróomi château biir Dakar bàyyi la ngay luye baraat ca géejawaay yenu na maana est-ce que xel mën na nangu loolu looloo yonent bi château yëpp yonent bee ko moom àjjana li muy tedd tedd bu du toon yonent bi yàlla du bind àjjana mooy li ma wax léegi bu leen ngeen may ma bu leen yooyu maa ngi koy wax léegi ci imam Moussa Alaaji Abdou moo ko nettali mu ne dama ñëw di seet si sëñ Fàllu mbakke fii ci kër sëñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma gii ci Kolobaat mu ne ndax dama dégg ne mu nga fa ma ñëw di ko seet si mu ne ma ñëw sëñ Cheikh sëñ Fallou nettali ma mu ne ma ah, si nit ñi dañoo daytoo ñoo dem dayo dem dayo mooy ëppal nit ñi dañoo dem dayo mu ne ko lu tax mu ne ko man di dama sëpp fii biig démb ca ngoon gis keesu néew gu ñuy indi xaw ma woon sax ñan lañ kees ga rafet lool ndax fëlër yañ ca teg ma àddu ne ah, ay waay néew bu rafet bu war a dem àjjanaa ñi nii waay néew bu war a dem àjjana nii lay mel kees ga day rafet mu ne am ko ne tonet ci taalibe yi ne ma mbàkke tey ci de kii du jullit bokkuñu diine ci masiixiya gi la bokk mu ne ma ne ko yaa sob lu ciy sa yoon moom xaj naa àjjana man xaj naa fa man fàll yow xaj nga fa loo ko ko iñaane mu ne ko xaj na fa yow xaj nga fa man fàllu xaj naa fa loo ko ko iñaane loolu mooy dëgg billaay am na ñoo xam ne buñ moomoon àjjana kenn du dugg ku ñoom kese kese kese waaw te yàlla junj na ko ci alxuraan nee na am na ñoo xam ne buñ ñëwee yowmal xiyaam ba ma di leen mbugal dañ naan yàlla jëlal sama ndey ak sama baay mbugal leen te bàyyi ma mu yàlla ne leen duma ko def ñu ne ko boole ci samay doom nga mbugal leen te bàyyi ma yàlla ne du ma ko def mu ne wa man fil ardi jamian suma yoon jii alxuraan laay wax de waxuma tey ba tey waxu kenn de yàlla ne mu def cey teg ne kon boog yàlla jëlal ñi ci kaw suuf ñépp nga lakk leen te man ma mucc ah kii moo bëgg boppam ah ba mu teg sa ñabdu góora may wax ngay tardé ay foog nga tardé ndax amoo ko la tardel moo tax aca jëlal place waaw ah, maa ngi jégalu nag cheikh bi bi ngeen ñëwee waroon naa leen nuyu waaye jërëjëf eh ñang ñang ñang waaw Moustapha ana Moustapha Moustapha kan waaw kañ maa ngi jégalu ak ñaari cheikh yu baax yi ngeen àndal kan kan ajaaru gi nit ñi nañ bàyyi caaxaan président nit ñi nañ bàyyi caaxaan yonent bi du moroomu kenn mu des nag bi mu amee juróom-ñeenti weer aminatu bintu wax bin mooy nettali ñoom saam yëkkati nañ ko aminatu bintu wax bin nee na bi ma ko ëmbee bi bi ma ko imbi mësuma yëg métitu mag mu ne te li ci gën a neex bu guddee moo may wéttali ndax mooy waxtaan ak man nee na bu guddee moo may wéttali ah am na wéttal yu ëpp yooyu bu leen woy Seydi El Hadji Malick nettali na ko yónnent yi def délégation di ñëw xam nga ñan ñoo ca mujj jigéenu jigéenu uuru ay na ya ca àjjana ñoo mujj def délégation ñëw ci Aminatu bintu Wahb ne ko suñ yaakaaru tey ak ëllëg ki nga xam ne bu taxuloo nag moom ñun duñ am mu yow yaa ko ëmb ñun day ñee nañ la li ñuy nekk nekk jigéenu àjjana ñee nañ la yow mi ëmb sangu àddina ak àllaaxira ñoo mujj ñëw ci délégation ma wax la beneen bu xew fa keroog bi yonent bi war a gane àddina altine bi mu war a gane àddina dimanche ci fajar la ko yonent bi ne pëkk pëkk yaay mu ne ko am ah, mu ne ko suba laay juddu boobu gën a neex bu leen wéy de ah dimbali ma rek yaay suba laay juddu <laughs> waaw kon ma bàyyi la rek waaye yow xam naa frein yi ngay taxawee yu neex la yow sa frein neex na moo tax mbokk ak gi Sayid moom amuli frein mu ngi fi jaar na ca imam Moussa léegi dama ko tere woy xam nga nu muy def day bàyyi avant may ñëw lay ñëw balaa maa ñëw fekk rajaxe na ba dem parce que léegi dama ñëw ci imam Moussa Oustaz Sidi Ahmed Mbay bi ne ma sayita ma ubbil ma ne njoolu na ma waaye baax na benn tey dama ko tere woy waaye fi ne noonu lay nappanteeg man ci tant yi daf may jiitu xam naa fii daf fi xamut waaye konoon ñëw na fi bu yàgg bi rajaxe ko dem waaw parce que dama ne ko yow woy du sa cër ndax amoo équipe neex nga baat man nga woy waaye amoo équipe ma ne ko xam nga lu la tardeel ak lu tax mënoo wér dama ko ko wax man ni ma leen koy waxee laa koy waxee kii ñëpp man du ma raay nit li koy jëriñ nga koy wax bàyyi ko mu dem say ndeyam ak baayam man lañ ko dënk 21 ans maa ko yore ñaar fukki ak benn ci ren maa yor sayid ndeyam ak baayam ñoo ma ko dënk magam ajjuma bale passé la ñëw xadaratul jumaa mooy seen xalifa feddaliwaat ko ndax si yaayam gaañu na bu yàggul xadaratul juma la magam ñëw feddali ko ma ne ko xam nga lu tax ma ne ko ñiy woy dañu am équipe suñ paree séddoo yow yow kenn la dangay taxaw madda mu neex ñu jox la lu dul neex lu dul jeex nga dugal ko ci sa poos dëngalu di wi ñépp naan xaalis ba nga lekk ko feebar amul benn werante mosaloo ci kenn séddoo ci kenn boo koy lekk di feebar xanaa ñuy fayee ko salaire sax boo leen ci joxee dara buñ fayee ko salaire dañ ciy maye yow ñu jox la nga wéy rek dugal ci sa poos dëngalu wéy yow ci ndum ñala doon awu sax doo leen ci mos moo tax du wér waaw kañ yóbbu succès bi yóbbu chèque bi man te nekk ma jeexal waaw parce que yooyu nañ ciy bàyyi xel man sama papa moo ma waxoon ne bu lekk hàddiya bu ma sañoon doo lekk hàddiya ma ne ko ndax dafa xaram mu ne ma déedéet soo góor góorloo ci sa barke maam di nga am lu ëpp hàddiya te di nga mën di joxe hàddiya moo dàq ngay laaj hàddiya ma ne ko lu tax joxe laaj hàddiya mu ne ma dafa garaaw ma ne ko lu tax mu ne ma boo demee ba loru ba loru ba loru ba mënoo ko ñàkk def mu ne ma defee ko nii ma lay wax laaj ko bañ jox la ko nga séddale ko ñetti xaaj benn bi defal ci sa poche benn bi jox ci miskin yàlla yi beneen bi nag bëree géewug diine nga jox ko ña doon tagg yonent bi ndax yi ñoo ci gën a yeey nii la ma ko waxee mu ne ma ndax ñoo ci gën a yeey moo tax mosuma ko laaj àddi te duma ko laaj ilaa yawmil xiyaamati dégg ngeen ngeen baal ma bët lu mu tege moo tax def leen très attention yonent bi wax na ko même di di di di duggi def ko ci li tra loo xam ne dafa transparence baaxut léegi nag tiitar lañ ko def damaa dem marché Auchan mel ni Astou Diouf damay dem Auchan yow dem def ko ci mbuus mu yaraax saucisson yi fromage gruyère yi ak ba ca des nu mu tuddati jambon yi yépp nga def ci romb waa mbedd mi am na koo xam ne njobootam mosuñu mos saucisson xamuñu ko sax nga romb ak moom ñu naan ay eh, waaye kër diw de am nañ solution ñun amuñ ko nga dem jox sa njaboot ñu lekk ñoom ñëpp ordonnance ngay xëy di jëndi ba jant bi so nëbb ko bu la ko yàlla baaxee nëbb ko ndem yonent bi dafa dem bene soo toggee yàpp mu xeeñ say dëkkandoo mu ne bu lekk seen àq boo leen mayul ci yàpp wa tànqal ci ñeex mi yekkal leen ndax bañ àq ndax xel dafa garaw dama koy wax toujours ba ci xale yi jàngi ma ne leen ku ci jox sa doom goûter jàngal ko partager bu mënta ñàkk sax jàngal ko partager su demee ne ko del may ñi nga dendal waaye boo leen ko waxut xale yi gàtt nañ gàtte xel boo xam ne mën nañu yor seen mburu di ko xamp di lekk ba mu jeex duñ la mës a wax am sa xel nekk ci nag yooyu yëpp nañ ci sensibiliser suñu njaboot yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba bi muy ganee àddina moo yee yaayam ne ko yaay tey lay gane àddina mu jóg ñépp wax nañ ne booba fajar xar na te bër guddi bañ a tiitaru bëccëg bañ tiitaru ndax guddi daf daan tiitaru ne yonent bi ci sama période lay gañe gane àddina bëccëg di tiitaru yonent bi gane àddina ci diggante boobu fajar xar na te leeragut shafaa seydatuna amina moo waaxul boppam ba ci shafaa shafaa ne ko lu xew consultation defoon nañ ko di te jotagul mu ne ko déedéet dama ñëw pour am si doom shafaa ne ko yow wax ma leneen yow trasu kuy matu newul ci yow kon boo ma nee dangay am si doom dana ma jaaxal mu ne ko ah shafaa ki ma mosta fen moo ma wax biig ne tey lay gane àddina kon mu ne ko kon toogal na le xaar waaye gisuma ci yow taraasu mat aminatu bintu wax bi nee na fi ma toog la mel ni dafa am lu ma ne yëkkat ma taxaw nee na ma teen gis muy benn pitax mu firi laa fu ndeyjooram moom pitax mi teg ko ci sama jë wàcce ko ba ci sama catu baaraam iso iso ñu ngeen ko tuddee bu ngeen di voté ji loolu ñuy mbañ gàcce gi ñuy dugg isoloir waaw ah, kañ moom la ko doon defal nee na mu teg laafu ndeyjooram ci sama jë wàccee laaf bi ba ci sama catu tànk jël beneen laafu càmmoñam bi teg ko ci sama ndong wàcce ko ba ci samay tëstal nee na bi muy wàcc ba ci sama tëstal laa yëg sama jumbax mel ni dañ ko xotti mu ne ci laa gis rek yonent bi génn cëppeelu tàllal baaraamu sànnikaayam césarienne fa la njëkk amee moo ko njëkk am ci kaw suuf waaw allahu akbar wallawxu waa walqalamu lbadiicu ruwaaw maa la ko wax لابنين مكلم جل محمد والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع الرواء اسم الجلاله في بديع حروفه ألف هناك واسم طه الباء يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الودى بك جاء محمد لمن بك بشر الله السماء فزينت وتضوعا مسكا بك الغبراء والآي تطري والخوارق جمة جبريل رواع بها غداء يا من لو الأخلاق ما دحو العلا منها wa maa yataashaqu alkubaraaw Muhammadu Lamin daa natka fi xalqi alazimi shamaa'ilun yuxraa bihinna wa yulaau alkuramaaw Muhammadu Lamin yowmun yatiimu ala alzamaani sabaaxu wa masaa'u bi Muhammadin waddaaw nicma alyatiimu badat maqaa'imu fadlihi sunu waaji wal yutmu rizqun baado wa zakaawu sayyidul waraa wa idaa saxawta balagta bi juudil madaa wa faalta maa laa tafalul anwaawu wa idaa gadibta fa lil manaahiya xadbatun في الحق لا دغن ولا بغداه وإذا رضيت فذاك في مرضاتي جنجاشم ورد الكفيل تحلم ورياء وإذا أخذت العهد أو أعطيته سنواجي فجميع عهدك ذمة ووفاء محمد لمين محمد لمين وتمدع المكل السوي مضاريا حتى يضيق بأرضك الصفاء في كل نفس من سلطاك مهابة ولكل نفس في الندى كرجاء والرأي lam yungal muannadu duunahu ka sayfi lam tadriq bi laaraahu nusixat bi tawreetu nusixat bi tawreetu wa hiya wadiatun wa taxallafa al injilu wa huwa dakaau lamma tamashaa fi lxijaadi akimo xuddat xukaamu bi waqaama xiraahu أزرى بمنطق آيم وبياني وحي يقصر دونه البلغاء حسدوا سقانيون فقالوا حسدوا حسدوا نبنيون فقالوا شاعر أو ساحر ومن الحسود يكون الاستهزاء xasadoo ñu bon ñooñu xasadoo ñoog soxor tey ñaan te iññeti te iññeñi xasadu ñu bon ñooñu fa qaaloo shaa'irun aw saaxirun waaye wa min alxasuudi yakunu listihzaao qad naala bilhaadi alkarimi wa bilhuda ma lam tanal min suudatin siinaaw يوحى إليك الفوز في ظلمات متتابعا تجلى بالظلماء دين يشيد آية في آية لبناء الصورات والأضواء الحق فيه هو الأساس وكيف لا والله جل جلاله البناء أما حديثك في العقول فمشرع والعلم والحكم الغوالي الماء huwa sib'atul furqaani nab'ata qudsi wa siini min surati wa raawo yumi sababa miqbadan asabi'ahu ñu naqari woon faju na tabaarakallahu amin ya rabbi lu ñu naqari woon rek man de bi may ñëw lu ma métti woon neex na ma waaw waaw saam jar na ko yonent bi jar na ko moo tax lii mu fi wax rek doy na sëkk ci layal yonent bi fa tabaarakallahu kenn du dox yonent ah mu ne deux cent quatre la xasida bi fii ci tànt bi mu ne yàlla dimbali na ko ba jàng na cent quarante et un yi tabarakallah ah suñu sens la waaw saam ci saami yonent bi la bokk xam nga saam ni ñuy saamee màngo waaw moom nag ci saamu yonent bi la bokk yonent bee ko saamal boppam moo koy teggil boppam incha allahu ak yéen ñii ñépp nag waaw waaw wallaay ndeysaan sëñ Mansour borom daara ji moo ko noonu saam wóoyalu ku la laal ma saam ko moom jinaas sa ko neexoon borom daara ji waaw jinaas rek la mënoon kon lii mooy yonent bi nii la gane àddina de ah moom la saam yëkkati mu ne aminatu binti wax bi nee na bi mu nee cëpp ma gis ci sama jumbax la génnee ci saa si mu ne mu mel ni sama jumbax dañ ko dafa am ko ko raay gisatuma benn cicatrice nee na mu yëkkati loxoom tàllal ko ci kaw moom yonent bi saai sallam banque juróomi baaraam yépp tàllal benn bu sànnikaay bi di tudd borom wacc sex bu baaraam bu déey bii di ko namp meew di génn te nampagul meewu yaayam Aminatu bintu wax bi nee ma ñibbisi toog foofu ma dugal fa benn boo xam ne rekk waa ji laa koy yóbbante keroog du ko am ba yomal xeyam ruux na siiru man moom ma histoire ma tax a wow bëgg histoire moo ma tax a wow nii maa la ko maa gën a wow ci kaw suuf bëgg histoire rek ma tax a wow man doon nuwuma ko war a tuuti sama yaay tuutiwut sama baay tuutiwut waaye histoire rek bu ñemee histoire ma tax a wow rawati nag lu jëm ci diine ak yonent ma yóbbante ko keroog bi yonent bi ganee àddina altine boobu abu lahab ah, tabbat yadaa abi lahabin nu jàng ngeen abi lahab boobu dafa am jaam bu jigéen bu mu amoon ci këram mu jaam bi kontaan ñëw fekk ko ci kaaba gi mu toog mu ne ko ab eh, ki eh, aminatu bintu wahbin am na doom bu góor mu kontaan ba ne ko yow mi ma indil xibaar bi goreel naa la bu ci yem boo demee sa néeg lu fa nekk may naa la ko yóbbaaleel sama doomu frère gane na gin gane na àddina ndax moo bàyyee ma bokk benn bàyyi sama doomu frère gane na àddina dal di waaxu ñëw tiim Aminatu bintu bi ne ko maa ngi lay ndokkeel ci gan yii ndekete gan ngaa koy toroxal te yëgu ko cofeel boobu mu amoon ci yonant bi waa ji yow laay waxal cofeel boobu mu amoon ci yonant bi keroog bi abi lahab yàlla dóor ko tabbat yadaa abi lahabin xam nga loolu lu ko gën a métti amul bokk ak sa baay benn baay te lu ko ko may lu ko ko yóbbee opposé yonent bi moo ko ko yóbbee ak di gëriyee gëriyelu li mel ni li waa ji def nii rek maa ngi dëggee ci làng ji gëriye la foo fekk koy gëri gëriyelu mooy njëkkat a dee ci xew ndax yonent bi dafa ñëw bi ko yàlla yónnee dafa ñëw taalaw ne leen kaay leen woo leen ñu ñëw ci kaaba gi ñoom ñépp ñu ñëw ñu ne ko loo ñuy doyee mu ne ila kalimatin waaxid ci benn baat rek laa leen di woo an laa naabuda illa allah buñ jaamu waay waay waay ku dul yàlla wala nushrika bihi shay'an buñ bokkaale yàlla ak dara wala yataxida baaduna baadan arbaaban min dunillahi bu kenn jàpp moromam ci ñun di ko def yàlla yàlla yàlla bàyyi leen li ngeen di def ñépp ne pat abi lahab di gër gërye gërye lu jóg taxaw ne ko tabbat laka yaa muhammad ali hada da awtana yal na nga toskare lii rek a tax nga doon ñëwoo woo magi jëmm mën laa jur di say bàyyi nga ñëw taxaw fi naan kaay leen wuyu ma ñu ñëw nga ju ñu wax sa waxu caaxaan yi wax ba xolam set yonent bi sëgg jibril na cëpp ne ko bu ko tontu ndax sa bàyyi la boo ko tontoo dañ naan da nga réew tontu nga sa bàyyi mag la boo ko tontoo dañ naan xale bi tontu na mag mi balaa ñuy xam ku te ku tooñ sa der yàqu bàyyil man yàlla man mi ko mag te bind ko ma tontul la ko yàlla jël même baat ba mu waxoon yonent bi mu soppi ko wax ko ko xam nga def ko ni tabbat laka yaa muhammad ali hada daawtana yàlla ne jibril demal tabbat yada abi lahabi baat ba la jël rek delloo ko tabbat toskare na loolu lay firi tabbat alku tabbat jural na ko alkaande fi mu ko waxee ba fa muy duggee bàmmeel ba àllaaxira ñu ne lan mu ne yaddaa ñaari loxo abi lahabin xam nga lu tax muy indi ñaari loxo ba may wax ba tey maa ngi naan nii rek nit lu muy def loxo ma ci ëpp dëgg la wala dëgg boo amul loxo sax daanaka rek sa àddina naqari na ba pare moo tax mu jël loxom bu nee loxom mooy jëmmam yépp la ci jublu yaddaa ñaari loxom abi lahabin yu abi ñu ne ko ak lan mu ne wa toskare na alku na maa lépp loo xam ne arna am na ko ci alal dootu ko jural teraanga lum sóobati loxoom rek alkaane la koy jubal jural anhu maaluhu lépp lu mu am ci alal ñu ne mu mel ni dafa am ko dee yàlla ne ko kii lim denc ci trésor yi bari na de mu ne wamaa kasaba ak lam denc ca banque ya ca trésor ya boole naa ko ca wamaa kasaba ak lam denc ca trésor ya boole naa ko ca anhu maaluhu wa maa kasaba ñu ne ko lan mu ne sa yes la naaran dana boole alal jaag moom yépp jaaroo ko safara ëllëg ñu ne ko ban safara mu ne zaata lahabin boy baramu takk-takk ñu foog ne fa lay yem mu ne déedéet wamraatu boole naa ci jabaram yàlla mën geer wamraatuhu boole naa ci jabaram ñépp dara seen gémmiñ ne ko yàlla kii jabaram lu mu ci doon mu ne xamalatul xata bi moo daan toog ba guddi mu ut ay dëkk taxan ay dëkk kenn du ko gis mu teg ko ci yoon wi yonent bi war a jaar pour dem jàkka ja kenn gisu ko woon waaye man yàlla gis naa ko moo tax boole naa ko ci seetal boobu secret yàlla mën a fay mënoon na yem ci abi lahab waaye daf ko ne wamraatuhu ñu ne ko yàlla lu mu def mu ne xamalatul xata bi moo daan yenn dëgg yaak matt ya di ko teg ci yoon wi yonent bi war a jaar pour dem ca jàkka ja fii jiidihaa hablun min masad nee na buum yam daan yeewee matt ma soppi naa ko muy ay chaîne moom laa koy yeewee ëllëg moom soxnaam tàbbal ko jahannam mooy fii jiidihaa hablun min masad yàlla mën a xeex mu ne matt mam daan buum yam daan takkee matt ma soppi naa ko ay chaîne moom laa koy chaînee ëllëg dugal ko biir jahannam xam nga lu abi lahab wax keroog dafa ñibbisi te boobu doomam a ngi denc doomu yonent bi dafa ñibbisi ne ko kër gi dootul neex sa bàyyi xas na ma ba noppi génnal <laughs> yàlla ne jibril waxal yonent bi ne ko mu dem mu tas sëy ba bés ni tey maa la ko wax yàlla ne jibril demal ne yonent bi mu tas sëy bi ñu tas sëy bi mu ñibbisi ndax yàlla bëgg mu am ci ngirte luy yonent bi du am ngirte luy dem safara moo tax mu tas sëy ba maa la ko wax yërmande mu wéet nag muy woy wudut fay ba faw ma ne yàlla mënoon na koo def mu toll ni baqara kenn du ko mokkal waaye xale yëpp bu xale yi dal jàng sax ci ne tabat yada abi lahabin ñu di ko tabat rek xale yi dal jàng sax moom la ñuy dalee jàng tabat yada abi lahabin wa taba maana anu maalu wa ma kasaba ñu di ko tabat rek la ko war nag la ko waral ngay gërye gëryelu ni waa ji def rek fi may jeexalee ajaaru bi yonent bi du morom du moromu kenn xoolal nii ma wax nii mu gënee àddina seydatu seydatuna aminatu ne bi ma ko xoolee traasu deret sax taqu ko mu ne luy gàkkal nit ak luy tilimal nit ak luy taqal nit taqu ko mu ne ma laal yaramam gis mu gën a rattax gën a leer gën a rafet di xeeñ parfon boo xam ne amu fi ci Medina ci màkkatal mu nee neena ma fekk ñu wat ko ba mu set tusngal ko dugal ko néegu góor mu ne lu ñuy defal nit rek defal nañ ko ko ci bés boobu te yëguma ko nee na ma jël ko ci ay laytaay indi tëral ci sama kow lal mu ne ma jékki-jékki gisatuma liir bi mu toog trois heures de temps gisul liir mu ne ah naa ko wax ay mbokkam ndax lii man attanuma ko mu ñëw fekk Abu Talib bàyyi Seydina Ali mu toog mu ne ko Abu Talib mu ne mu ne ko ah liir ba de gisatuma ko Abu Talib génn rek nàmm jaaseem xaw na ko poñe ci jigéen jiy door a mucc ne ko sama doomu frère fu mu mën a dugg di ko génnee bu dee yaa ko sàkkal pexe di nga xam ne am na ay bàyyi gannaawam mu ne ko man dama lay ñëw di yëgal rek gisuma gisuma gisuma liir man mi ko jur kañ xanaa maa la ko gën a bëgg mu ne ko loolu sama yoon newu ci sama doomu frère na génn fi muy waxee rek am baat bu muy dégg moom Abu Taalib bu naan ko bàyyil jàmbur liir baa nga ca àjjana waa àjjanee ci pareegut Seex Bamba laylatu mawlidi nabi laylatu mahabatul zita njol Makka laylatu mawlidi nabi laylatu mawlidi nabi laylatu mawlidi nabi